ben nit ñi bu leen sénégal waree mu jig leen dana ma jaaxal ndey xari njaay docteur alfuseni gueye cheikh bare njaay ci xel mu sell ma bay mbay mc nias capitaine touré ca jom ja ak fidwa waaye ousmane sonko ma nga xam ni moo nelaw gaañu bare bari ñii am yaakaar ci seen ëllëgu réew mii ak ñi nga xam ni am nañu am tiitaange ci seen ëllëg ci yàq gu ñu yàq réew mii lépp lu leen dal dëgg doo nga leen ko yóbbee ak dëggu waaye bu lu meloon ni ñi ëpp ñime yàlla wala jàpp seen njàmbur ni sunu yoon nekku ci réew mi bu dee yàqu bu dee defaru wala ñu gëm aduna ak alal boba la ñuy jaay seen bop wala seen ngor ni ku ñu bare bari ci doomi réew mi di defé japp ni bu réew mi doon tak wala muy jaxso ñom mom seen lepp baxna deug nak momelu yalla la waye neen momelu setané la motax képp ci deug képp ko and ak setané nonam nga faw dalay rëbbu waaye nag képp ku ànd ak dëgg mi nga xam ni moomeelu yàlla la yàlla du la seetaan bu ñépp gëmmee seeni bët lank ni duñu gis seen jëf yu rafet yi na ngeen xam ni yàlla nga koy seede te yàlla nga koy gis waaye nag kenn du leen manal lu leen yàlla nëmmalul waaye itam jàmbaar gi ngeen wone moom la seen ay maam wone woon ci jamonoy noteel waaye warkat yi nga xam ne ñoo ni war tey ak dinu noot noonu la amee ñu demoon lënkaloo noonu ak tubaab yi ca jamonoy colonisation yàlla na yàlla sàmm leen yéen ñi nga xam ni yéen a fi nekkal yàlla waaye nekkal fi askanu Sénégal mboolem gémmiñi safari yi ñoo ngi yàbbi saa su ne fitnay projet ak la ca nar juddoo lépp nga xam ni ump na noonu ñëpp yàlla rek a xam waaye nun nag nu bëgg saa sune askan wi ci boppam ñu leen di bàyyiloo xel lenn ci manipulation yi mën a juddu bokk na ci yooyu nag loo xam ni lu ñuy mën a amal la ci xeetu xarala muy li di tuddi deep loolu yi nag bëgg na leen ci indil tënk bu gàtt li ci des ñu indil leen ci geneen caaf boo leen nu toppee sunu càllale gii di xalam TV bismillah ñaan nañ jàmm yéen ñi ñuy topp ci sunu càllale yi di xalam tv mag mu baax ma dañu woon tuubal de du dara lu moy dellul ci yoon wa dellul ci yoon wa nag koo ko wax rek mu tiis ko xamal ni fa ma ko wàccee sori waaye ku baax ka ni woon dee leen jaar ci yoon tey moytu ñàll wi ndax yoon kat saa boo ci jaaree di àgg ci dëkk mbaa nga dab luy dem mbaa luy dem dab la te mën na am mu yóbbaale la waaye de dee moytu ñàll wi ndax aw ñàllkat ku ko topp doo dab dara dara du la dab te yàgg bu yàgg fii fana dong ngay mujjee kaddu mag ñu baax ñi ñu nettali nag dañuy fàttali mbir moo xam ne moom lañu nara jàngat te muy lu saxal képp kuy doomi milim réew Sénégal nag mooy réew moo xam ne ñu ëpp ci doomu aadama yiy diglu dañuy am li ñu tuddee pensée unique muy wenn xalaatiin rekk la ñu bëgg a dégg maanaam kii bu gisee ni nii la day jàpp ni ku nekk ni mu gisee rek noonu la war a gisee saa bu loolu amul nag day jàpp ni moom dafa war a daal di attaqué loolu nag di màndargam li ñuy tuddee xëmbeen ak li ñuy tuddee ñàkk yar ak ñàkk yeewu waaye itam réew la moo xam ne benn wax mën nga ko wax junni nit dégg la te ku ci nekk na mu koy déggee ak na nga koy waxee dara du ci nekk benn ci interprétation yi ngay séen rek bu ñenn ci kilifa yi waxee doy na ci njàngat waaye nag ak lu mën di am wurule tee kenn muy wax dëgg ndax dëgg dafa naturel lu yàlla moom la te saa bu ko nit ki wax wuru cee soxla xarit bu koy topp wala noon bu koy won ginnaaw di ko dëddu na gis yàlla mi nga xam ni moo ko moom te sàkku ko fi te sàkk ko fi ngir muy fo bu dee ni dëgg rekk nag lanu bëgg a dégg sunu Sénégal gii ñoo ngi fooye safara ci biir làkku bopp mboom nag ci ñi ko xam xal bu tegee ci kawam dara téréw koo tàkk te man li ma jaaxal ci mbir mi ñi nga xam ni ñoonu nar a tàbbal ci biir daay goo xam ni xamuñu fu mu yam seen avion gaare na ba noppi dara dara teewu leen lu may ni dëkk baa ngay tàkk rek ñu won ginnaaw ni firr waaye ni tërr dem seen bu mu la bett mukk nga dégg ñu ne la génneel na la ab vidéo ci benn projet bu ñu namm amal ni la waa ji kat ñu soupçonné am na preuve buy wane ni moom moo siif wala bu fekkente ni suivut itam moom moo doon def nangam lii kon waa ji ku mel nii la wala ku mel nii bu ñu la waxee loolu nag xëy na dana la jaaxal waaye ci li ñu tuddee technologie waaye ci informatique dafa am lu doyewaar doyewaar lu ci am loo xam ne ñiy saay-saay si dañu koy faral di jëfandikoo ngir jéem a yàq carrière bu aji politique wala carrière wu ñenn ci ñi nga xam ni way siiw lañu moo xam ak lu ñu mën a doon mën naa nekk sax ba ci kilifa diine. loolu nag nekk loo xam ne réew yu bare bari dañu ko condamné maanaam nekk loo xam ne dañu koy tere ba ku ñu jàpp dañuy wax ni daan yu rëy lañ lay teg ndax li waral loolu mooy jëmmi mbir moomu képp ku ñu ko amal ci yow ba président de la république mën nañu ko jël di ko def looloo xam ni ñëpp kenn du sikki sàkkani moom la te en réalité du moom loolu nag boo ko xamul moom la ñu tuddee deep feek deep feek nag am na benn chaîne bu ci defoon lu am solo muy ki ñuy tuddee La Racine dinañ la defal vidéo bi ci description bi nga topp ko waaye itam ni nga fay génneeku di nga dégg mu ni la jamono ji gën naa développé waaye ñu di la xamal ni xëy na des na la ci defal wëpp bu ñu ko waxtu wi mayee waaye di nga fekk ni di di fekk ci boppam maanaam fi mu nii dem na ba jéggi dayoo ci wàllu développement ak suqaliku maanaam boo xamul li muy wax mooy di fekk mën nañoo fekk koo xam ni day jouer pornographie maanaam film yu caaxaan yooyu ñu jël kanamu benn adversaire moo xam bu politique la wala sax euh, célébrité wala kilifa diine ak ku mën a nekk ñu jël kanam googa montage ko ci jëmmu ja ba nga xam ne yow booy xool jëmmu ji amul dara looy mën a xam wala lu lay mën a xàmmeeloo ni du jëmm ji nga xam ni mooy adversaire bi mooy jëf-jëf ji ñi ni tudde nag saa Israël yi yàlla jay na leen ci wàllu technologie ba tax na amal na benn application wala mani plateforme boo xam ne dañu koy jaay état yi ngir ñoom surtout bu dee ñi ni tuddee dictateurs yi ci la ñuy faral di espionner seen ay opposants ak mboolem nit ñi nga xam ni ñu jóg ngir di leen opposé ci seen ay xalaat wala seen ay bëgg-bëgg wala di wax dëgg daa nekk benn application wala mani plateforme boo xam ne ñoom la ñu koy faral jaay nji réew yi nga xam ni ci dëng ak la ñuy faral di dox bu ñu la ko joxee dangay ngay mën a espionner bépp appareil bu mën a nekk maanaam lu ko yéemi yéemi application bu ñëwee daf koy démolir toj ko ba nga xam yow da ngay mën am accès ci jollosu nit ki wala nosukaayam muy machine am wala sax bu yoree beneen jumtukaay jëm mi ñoom ñu def loolu nag nga xam ne lu bon rek daanaka moom la ñuy def nit ki nga xam ni noonu la ñuy jàppee doomi Palestine yi di lor suba ngoon noonu li ñuy wëri ci àdduna bi di ko yàq ci ay application yoo xam ne ñoom ñoo koy def ngir di man di espionner jullit ñi waaye itam di yàq ay askan di doole ñi ñu tudde dictature yi déggoon na nag ci ay jamono ay saabal di xam xamle seenu tab bi waaye seenu impliqué ci yu bari ki yu soxal sunu réew mi waaye ñoom ñooñu mën nañu àgg foofu ci di feek boo xam ni wala loo xam ni tey bu dee ne dañuy amal seen bu yàq der atte yàq der wala jotaayoo bu yàq der wala bëgg ne ab adversaire ngir bëgg koo xañ ay élection lu nekk mën naa nekk maanaam bu mu la bett benn yoon ñu indil la benn vidéo indil la kunu bañ kunu bañ ku nu xeeb wala koo xam ni dañoo bañ mu ànd ca élection ñu def ko boole ko ak génn jigéen ni moom moo doon def lii wala ñu indil la ay image wala vidéo naa la lii preuve la boo xam ni mooy wane ni kii nit ku bon la lii benn avertissement la boo xam ne dañu koy avertir ñi xam ne amuñu li ñu tuddee l'esprit de critique maanaam nit ñu baree bari dañoo tàmm dégg gëm wala gis gëm te loolu mooy li gën a dangereux maanaam nit ki dafa war a nekk responsable saa boo déggee menn mbir ngay xalaat weddi ko ba noppi door ko gëm manam in akum fasiqum binaba naba in fatabayyanu loolu la nu laaya ja wax muy nit ki sa bu lëb saabal dikkalee bala nga taxaw di deugal deugal ak du deug da nga wara leerlu waye scientifiquement surtout bu bu nga diglu ñi nga xamni ay expert lañ ci walu gogu ñu décortiquer ko waye ñu nek expert yu mandu ndax suñu réew mi dafa bari ñu ni tudde ay intellectuel waye duñu dara lu moy ay say say Thomas Sankara nak daan na wax naan Sobéré muy soldaar bu ñu loofoon muy bu ñu formé ba noppi te defuñu ci xelam ak xolam bëgg réewam ab assassin maanaam reykatu nit bu ñu ngemb la jox ko doole loolu nag day feeñ ci doxalin yu bare bari ci suñu réew yi waaye suñu réew yi Afrique yi gouvernement wala nguur ku ko yor buur lay nekk ndax doole ji yépp ci sa yoxo lay nekk saa boo namee yàq réew mi day mel ni day jàppandi ci yow lool Cheikh Bara Ndiaye di jàmbaar joo xam ni lu ñu baree bari bëggoon a wax te mënuñu ko wax ba amuñu fu ñu ko waxe ba ñimiwuñu ko wax moom mu leen koy waxal loolu nag tax na day daal di nekk noonu képp ku ànd ak seytaane ndax seytaane noonu yàlla la te dëgg alalu yàlla la yàlla nag lépp lu mu moom seytaane du ko bëgg te Cheikh Bara du wax lu muy dëgg mën ngaa bañ a bokk moom xalaat ci lépp lu muy wax waaye képp ku ni doo ko diglu ndax jàngul français itam da nga fekk téeméeri junni yu teg yu koy diglu ci wépp wala bépp ay bis xëy na français yi dañu noon noot ba nga xam ne gëmloo ñu ni bala nga am xam-xam faaw nga wax français waaye bu fekkente ni xam-xam mooy làkku français kon xale yi nga xam ne ñooy door di dugg école ca France kon ñooy tolloo ak ñi ni tuddee fii ay intellectuel bu dee ni làkk français dong mooy xam-xam su fekkente ni làkk français dong mooy xam-xam kon xale yi ca siin xamuñu dara waaye ñi nga xam ne ñoo fay seen ingénieurs yi nga xam ni entreprise yi gën a ci àdduna ñoo koy def kon xamuñu dara bu dee ni làkk français mooy xam-xam ni ki nga xam ni doofu Sénégal wala xambeenuk sénégalais noonu la ko jàppee su fekkente ni làkku français mooy xam-xam kon ingénieurs yi ci Amérique xamuñu dara wala làkku jàmbur mooy xam-xam lii mooy laaj bi Cheikh Bara Ndiaye du xaj ci wëpp dañu koy bëral wëpp boppam ginnaaw bu weesoo loolu nag nu bëgg leen indil leeral yu tuuti rek ci li ñu tuddee divertissement maanaam ci xel xam muy psychologie yi. waaye nun li coow li di bari bari jàngante bi nu am rek te bëgg di ci bàyyiloo xel képp kuy doomu réew mi muy dafa am ci psychologie muy li ñu tuddee xel xam benn téori de manipulation. te bokk ci théorie yooyu mooy li ñu tuddee divertissement muy wëlbati boppi nit ñi ci benn idéologie wala benn objectif te dañoo gis ni sunu doomi réew mii dañu ko yomba def lool dañu leen di génn ci li nga xam ni mooy l'essentiel di li ëpp solo waaye du gën leen ci ay détails yoo xam ni du am benn njuréef gis nañ fi fan yi benn waxkat lu ñaaw maanaam ku duural menn mi waaye nekk ko xam ni wolof da ko atte ba mu ne wax bu ñaaw dëkkul fa mu jëm waaye fa mu jóge la dëkk waa ana nit nu mu mën a artoo nit ñëpp lay tayal boppam ni man de xam naa ni dinaa wax te lii may wax day mel ni ci man la war a gën a jëm mu daal di fexe ji ma tëj gémmiñu nit ñi psychologiquement loolu ñu bare bari bàyyiwuñ ci xel dafa am ci théorie yu psychologie yi yoo xam ne ñi ni tuddi jaami seytaane yi muy franc yi dañu koy faral di amal lu bari te mooy li ñu tuddi divertisement mooy bu ñu gisee ni menn mbir am na wala bëgg nañu amal menn mbir moo xam ne société bi yëpp daañu ko bàyyi xel dañuy fexe ba créer benn problème boo xam ne dana nekk ci boppi nit ñi ba duñu tal ba ca des ca noonu nag ca la ñuy purifier daal di def li ñu bëgg a def lii nag tax na nun saa bu nit ñi di nekkee di coow ci menn mbir ci kaw nun la nit ñey coow dañu koy bàyyi ñoom ñun dugg ci suuf di luñ ñutu yenn yi nga xam ni moom la saay-saay si di waajal ku bind téere wax ci ko xam ni yàlla setal na ko wax ju ñaaw ginnaaw ba nga ko tuumaalee ñi nga ko tuumaalaloon génn setal ko waaye dañoo di ko tuumaal ba jox ko istuwaaru koy xeexal loolu doy tuuma waaye tontu la lii moo ci gën a gaaw mooy ginnaaw ba ñu xamalee mboolem doomi réew mi te kii ñuy tudde musafa Diop def ci liggéey bu am solo wax te jëm yàlla rek tax xam le ni tuuma ji nga xam ne jëmale nañ ko kii di ab la wax dara du ci dëgg waaye mbir mi nii la amee woon wala bu fekkente ni daa am ah lu yenoo di maanaa la ndax histoire bu répétitif mel ni ki nii man dama ko musul digg njàngat yooyu doy na sëkk leer na nañ ñi macha allah Xalaat TV ñëw def ca leeral gu am solo waaye li nga xam ni nag mooy la ñu dut war a bàyyi te wëreesu ko ca jéggale mooy bindaat ab téere moom ni mu bind téere boo xam ni day setal ki ñu tuumaal waaye bu fekkente ni da ko jar sax ñu xamle ni wax ju ñaaw dëkkut fa mu jëm waaye fa mu jóge la dëkk lii dong mooy wax ji li tax mbind mi nag mooy dañuy yee génération yi ñëw ndax téere dafa nekk lu mën a yàgg ndax ki koy bind bu yemee ci wax amul jafe-jafe wax mën na teel fay waaye bind daa mën a nekk juddu di judduwaat saa su ne te tuumaal gor su defut dara bépp gor buy gor ni moom du neex ci sa xol sa bu demee nag ba nga xam ni ku bañ a tilim muy xëppe mbalit warees na ca dut baaraam ndax saa bu nit ki bik di bind di wax ci nit lu ñaaw te fekk booba la wax ca kooka nekkut lu yoon condamné mu nekk affaire mërs waye ci jamono Joju? mu man na tuddal benn anonyme bu ko gën a jige boo xam ni moo taxoon mu ni day bàyyi wax te kenn déggu ci ba léegi benn condamnation ñu ni affaire ba fa la yam ba xalaat tv sax defal na ci vidéo ci victime bi kon loolu lu jara xalaat la maanaam lu jara waxtaariwaat la lii mooy doxinu sénégal ak seen ay gisin dañuy fàtte lu weng bàyyi ko nekk ci loo xam ni amul benn benn firnde lii la ñu leen doon indil di leen jaajëfal yéen ñu doon topp suñu càllale gii di xalam TV